Le problème bi c'est à mon avis personnel dafa simple bi jiitu mooy euh, anam moom ba mu ko defee euh, beneen bi ci top moy lan motax ma nek fofu lan motax ma investir fa ak euh, lan motax ñom ñoom seen bopp mënuñu protéger seen ay propre mën na leen wax seen ay propre situation parce que ñun ñep ku ci ne da nga bàyyi xagn sa bop jox leen ñom parce que ñom sommes on est bien d'accord donc à partir de ce moment day dans ma tête j'arrive pas à le résoudre à à mënuma exactement estimer. c'est un peu c'est aberrant parce que Bala may euh, déposé pour euh, place euh, mi déposé au niveau du délégué marché donc il euh, y ay yenen affaire yo xamné dessous de table yo xamné da ci rax man ba yexé je suis arrivé au Sénégal le 7 juin suis ngi au Sénégal le 7 juin donc à partir de 7 juin man m'a def complément au versement bi pour mën attribution place bi dakk dina len par rapport ak euh, reçu dakk dina len par rapport ak contrat pour mën ci jot calmement mais malheureusement à fin daw nañ ba sonu mais jotuñu ci te résultat final bi lan la joxé néna dafa faté document bi wala da ko ci cartable le premier adjoint qui s'appelle Bira Gaye mom en question nga xamné premier adjoint kàddoom warul nekk kaddu flafla warul nek kaddu ko xamné day wax mu jàll donc kaddu kilifa la té jusqu'à présent mënuma dindi fam parce que nit ku nek tamit euh, comme Sénégal lañ nek té Sénégal dafa nek dëkk bo xam dafa spécifique Manam nit amna âge bo xamné ak amna na bo xamné boko amé boo que soit la situation kilifa ngay don. donc man en tant que sénégalais et jeune sénégalais comme bo amé karo gu ñuul ñi nan ñako dara man lima gëm moy quel que soit alpha kilifa lay don. on est bien d'accord donc ci kaw fam bobu man pour man ay cadeau cadeau kilifa la du kàddu flafla donc quand ba ma incité ne ma vas-y demal rassurez-moi moi je me suis mis en confiance et j'ai investi sur la place Mon mën ko defar mu accueillir bagage bagages nga xam pour ñu nous faire def fonds de commerce am ay nit donc quel que soit Alpha on essaie de participer au développement de notre propre pays mais malheureusement d'après ses dires mon il a bien notifié que de ko est ci cartable le 7 juin je l'ai remis à

lu day ni ni il est pas apprécié ailleurs mais néanmoins sa vie n'est pas facile dundam yombul ci biti nga dem ci biti lu day ni ay moteur nga dajale Il temps fi nga koy da ngay fay xaalis boobu kan ko jox maire kan ko jox adjoint au maire kan ko jox kenn dëkku dem liggéey ko dajale ko di leen fay pour mën a place def fa ay moteur ak ay bagage

kenen ko rombu ci tali bi muy xalé wala mag mu jangi école wala ñukoy koy faj sa xaliss même bu dé 10 francs la dugg na ci seen société sénégalaise bi donc est-ce que man dina def montage financier bu day non ñëwaat di dugg ci ay affaire mbuxum honnêtement ci lo xam mën na dem def demande bi gratuitement ñu ne ma déet wala ñu ne ma waaw gratuitement est-ce que nuru naa la ko xam dina dem taxaw di dugg ci yenn yo xam amul sens honnêtement

yoon ngay topp yoon partagé la préfet mi ngi fi loolu mooy njëriñam xam nañ ko ñun ñëpp moom maire la xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ lan mooy lan mooy njëriñam vous m'excusez un instant ñun ñëpp xam nañ lan mooy njëriñam donc ce qui veut dire que yoon bi mu waroon topp à mon avis personnel toppuñu ko et je je notifie encore et y a une dame boo xam te ni moom moo bëgg jël sama place je connais pas son nom moom moo indi ay nit indi ay camion ba wajik borom camion bi ci bopam mi ngi taxaw ni bu xamone ne lii moo tax muy déplacer wu di ñew du fi ñew mais dafa ne ko taxawal dama lay yokal waaw ben instant mën nañ ne danga ñëw ëpp doole nga def lu la neex mais dañu nekk ci génération bo xam ni instant bi on a un président qui est jeune te man gëm naa ni jusqu'à preuve du contraire mën nañu rétablir l'équilibre par rapport à la vérité et la logique des choses mom bu fekkee dafa soxla sama place elle a même pas le droit de se déplacer mooy bi jiitu parce que ça lui concerne en rien mairie ko jox na toog xaar maire def def liggéeyam mairie buy def liggéeyam na ko ci yoon parce que man bu ma jàngul sax yaakaar naa ne huissier de justice pour génne nit lay jariñ te dina la jox délai d'expulsion au minimum de huit jours à quinze te assignation boobu bu xasee ba diggu li ñuy wax force de l'ordre muy police da nga xam ils sont respectés dans ce pays ñoom ñooy ñëw taxaw te di nga génn par la force te wax du am donc bu fekkoon dañ ko jaarale ci yoon man au minimum dinaa du est-ce que dinaa ñeme dem taxaw police ne dama leen di plainte dem naa police toog commissaire bi suivi bi ça fait deux semaines maa ngi ciy daw chaque jour ma dem mais malheureusement commissaire bi jusqu'à présent avec les dossiers yi nga xam ne moo nekk police il a pas encore le temps suma ma ñëwee yenn saa yi dama koy fekk mu nekk pause yenn saa yi su ñëwee fekk dossier yi bëri euh, yenn saa yi suma ma ñëwee euh, li mu war a recevoir day bëri et je viens un peu en retard ou soit un peu en avance donc il faut accepter les réalités du pays benn instant loolu mooy li fi am. beneen bi si topp nag ma ma souligner ko euh, li tax affaire bi yenn bi diisul ma teel leen ko wax ñu dégg ko yenn bi du diis parce que bala ngay xam nit ñi nga nekk ci yenn monde de trouble donc j'ai eu des gens autour de moi Ben, ci sama yaay d'abord parce que jour bobu mom mo yokk tax sax man len len parce que elles sont venues la dame elle est venue avec des nervis qui habitent à Pékin... man dina jël ay nervis ay ay nervis la andal yu jóge Pikine mu leer nervis yoyu bu ñu

ma taxaw di ci teg sama bët sama xol di jeex nag di metti mais looy def bakkenu doomu aadama moo ma gënal moteur ma bàyyi mu jàll loolu rek la de moo tax moteur yi def mais su ma neexoon taxaw ne leen sama bakken laa ci teg te bu boobaa du mujj fenn deretay bëri mais lu tax lu tax ay mag di diriger ay xale ci biir dëkk ñuy xeex seen biir te loolu si je me trompe pas suñu président ba muy yéeg lan la waxoon je vais créer la rupture cette rupture là doit commencer par nous-mêmes

woowu ko pour lui poser la question wala ñaan ko wala saraxu ko amul man dem naa ne ko je sais pas la dame c'est quoi le contrat mettez-moi le contrat sur la table je vous donne au niveau du trésor de la mairie ma versé li dame bi versé man ak moom ñu toog waxtaan su ma paree je lui remets la place il a refusé si tu refuses ça à un jeune sénégalais expatrié noonu naa toog Europe bañ a ñëw def comme ñëpp soo ñëwee 15 jours après nga ñibbi mais man dama ñëw indi ay bagage pour nit ñi mën a liggéey gaar yi naa ci am dara mais am na ñoo xam nañ ci fayal seen doom ñu jàng am na ñoo xam nañ ci dund bu ñu waroon dem sàcc tey du ñu dem sàcc il faut que plus-value boobu ñu commencer di ko cerner dans ce pays là ba pare di ko valoriser c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes mais on peut pas compter sur les autres pour fa kenn mënoo toog sa biir kër di xaar keneen mu ñëw baleel la ko c'est pas possible yow yaay njëkk commencer bale sa kër yaay njëkk commencer defar sa kër nettoyer après dem ci biti bu la neexee xam nga kilifa la te kilifa am na baat yoo xam ne doog ko jël mais en tant que jeune sénégalais je peux lui dire carrément euh, l'événement ne s'est pas déroulé comme ça et je suis désolé du noonu la amee ameewul noonu ameewul ameewul noonu elle a été explicite et claire même bu ma fa nekkul woon elle a été explicite et claire wax na leen ni kii mënul jëlee ay bagages ñëw teg ko fii te ñëwul de manière anodin ñëwul rek tabax dinaa ñëw fekk terrain mairie ñu teg ko ma dem jël sama xaalis mel ku dem tabax ko noonu def ci double pour accueillir des moteurs commencé def ay murs nañ waxante dëgg rek en tant que jeune am na loo ne dafa rek fekk mairie mairie du aale musoo gis maire buy aale fenn parce que yor ñaara am da koy jariñ pour mu génnee xaalis mën financer les les comment dire les dépenses de la mairie mairie bi ñi fa nekk dañuy fayeeku mais faut ni fayeeku Faut ñu koy jëlee à part subvention ba euh, nu mu tuddati bailleur de fonds wala état subventionnel. Voilà, wala nga jëlee ko ci juuti bi ak taxes yi ngay fayeeku c'est quoi le problème dans tout ça man mosuma dem ci mairie diko ab sama yaay mosul dem ci mairie diko ab demande lañ def ka ñu def demande bi moy premier adjoint Bira Gaye Bira Gaye nee carrément man dama taxaw mu ne ma meun nga tabax dans la semaine je vous donne les papiers Lolo, il dit problème bi ba problème. tabax mi ngi taxaw ba tabax mi ngi taxaw <laughs> il faut être logique c'est-à-dire on est dans un pays où les gens refusent d'être logique Bama may tabax Bira gay, mi ngi taxaw ba wax mur bi fan lay yam. je suis jeune j'ai pas besoin de mentir te lini amni, am ni su ma neexoon ni ma ko ne ma baye, ma bàyyi leen ñu dem ma dem mais ben instant tamit il faut ñu nangu ben affaire am na mbir nga koy def d'accord mais di bés dina ñëw day am fo xam ak ko xam ci lay yam té li tax muy yam fofu moy koku day décider ne do leen ko defati keneen moi je répète encore une fois je suis pas le seul dans cette situation peut-être les autres n'ont pas envie de parler peut-être les autres aussi ils n'ont pas les mêmes valeurs marchandes que moi bari na fa vous que vous êtes euh, vous êtes de vrais journalistes d'investigation mais faites que vous avez le temps d'investir dans cette dans cette dans cette rubrique là vous allez découvrir quelque chose qui me dépasse personnellement moi je vous le dis directement la dernière fois si je me trompe pas ñëw nga di ma mais c'était de manière bref la nga mais amna na xalé xale bu fàqee fële ci langue bi ñu fekk la nga tok, mun la grand kay ba nga ñëw mun la man mi ci la bok. exactement donc du man lo xamné dam ko dem diko inventer wala makoy fabuler du ay créer ay boucan déedéet il faut que ñu nangu ben affaire il faut que ñom liñ ñu leen dénk ñu commencer di ci sam parce que buñu faté ni tamit xaalis biñ ñu leen di denk ñun ñom ñing ci ciy té ñun dañuy xagn suñu bop pour ñom ñu mëna a yow ba may jëli moteur fu mu nekkoon moom sant añ du mi ngi fi biraage fu mu nekkoon mi ngi fi ba ma ko indee di dédouané dama leen wo téléphone dama leen ne kaa leen dimbali leen non. Ben affaire rek lañ leen sante dama bëgg occuper place bi nee ma monsieur c'est impossible parce que li may def ni ça fait cinq ans que je le fais dem naa mairie bu Cambérène j'ai travaillé avec eux Séga Diop laa tudd xam nañ ma bu baax boo demee pharmacie Mbañoon laay xam nañ ma du ay koo xam te ni xamuñu ko xam nañ ma boo ñëwee fii ci Score Sam derrière Bazof xam nañ ma bu baax a baax euh, bugguma sax dugg ci yeneen détails yoo xam ne day nuruk affaire politique parce que honnêtement, j'aime pas cette politique Machiavel du Sénégal. Je le cache pas. Mais néanmoins, côté Barthélémy Diaz, Dakar Sacré-Cœur, je fait fa def demande Barthélémy dem ba tim mais malheureusement avec euh, les événements présidentiels et tout il a pas eu mon temps et je l'accepte xam nga tey mënoon naa ñëw taxaw ne Barthélémy sama jot parce que beneen xeetu nit la mais non j'accepte ses conditions de vie j'accepte son son organigramme ma nangul ko ma wax

il ne devait même pas les déplacer en honnête mot il ne devait même pas les déplacer léegi nag plainte bi dugg na ñu ngi xaar commissaire bi ci boppam def li nga xam droit moo ñu ko may muy lan ñu dem fi nga xam ne la ñëpp bokk muy justice parce que justice mooy Sénégal en quelque sorte à partir de justice boobu nag su fekkee mën nañ fa yegg ah, ñu séparer su fekkee man maa toor man bu boobaa dinaa ko nangu ma jël samay bagage ñibbi su fekkee nag man tooruma justice def liggéeyam ñu xam ne Sénégal am na amaat na dëgg te Sénégal rek mooy am dëgg. léegi loolu moom appréciation boobu je préfère bàyyi ko ñi nga xam ne mooy seen liggéey. mais man. d'accord moom mën na bañ a signer papier mais tey nañ jël feewu premier adjoint fi mu jaarale affaire bi wax ji foofu la nekk yow ñëw nga tabax taxaw ba may tabax donc yow yaa ma jox autorisation autorisation boobu mi ngi ma jox foo ko teg te nga ne tourner xool ma ma xool la nga ne ma dans la semaine au pire des cas dans deux semaines bu maire bi ñëwee ma teg ko table mu signé ko après nga wëlbatiku ne document boobu dafa réer yow loolu noo ko mën tuddee en tant que journaliste. non fi mu toll nii yow di nga ma jox sa réponse mais je préfère aussi ñuy seetaan ñu ñuy seetaan ku ci ne jël sa réponse nga jox ma man en tant que la personne interviewée man may def appel aux Sénégalais ne leen léegi ku ci né na ma tontu bu féké man dama ñëw ci dëkk pour indi bagages ñëwul fekk la nga tok ñu poste premier adjoint au maire nga ñëw taw taxaw di nga place bi gëm y' a pas de problème mën nga tabax mur bi yam parce que la place bi derrière bu mur bi y aura des problèmes man nangul fii ci kaw nga ne ma non li gën mooy nga couvrir ko d'une autre manière yow yaay wax ak man naa ah. ma ne la ok kon donc jot naa fa dugal xaalis taxaw nga superviser ba ma tabax ba pare ci kaw kàddu muy contrat tacite léegi yow contrat boobu contrat tacite boobu ak investissement boobu ma def nga wëlbatiku ne réer na en tant que premier adjoint kilifa dama bëgg sénégal yi wax ma loolu nan la tudd man. sama premier conteneur bi ma njëkk indi Sénégal kayit bi mi ngi ak man ba tey pour que suba boo ma woowee par rapport ak sama code PPM ne ma seega compte lii ci conteneur ma ne la lii laa commencé nii la tolloon xaalis bi fii la toll lii laa ci dépensé fii laa ko jëlee ku ma woo ma wuyu mais tey ñu jox la document nga ne réer na en tant que premier adjoint il faut que ñu dégluwaat tijji suñu nopp yi xalaat document premier adjoint man nanguwuma ko ndagam man mi nga xamne je dirige juste des personnes nangu ma réeral ben facture waxatuma la contrat. léegi dernière question bi euh, fi nga ak mhm. fi nga parce que déjà dañu paralyser activité bi déjà liguey liggéeyatuñu ça fait plus de deux semaines ba ñu jëlee ba légui liguey léegi euh man du né paralyser nañ mais lal nañ ma parce que c'est très normal dang koy yëg léegi yow bu fekkee moom am xolu pour l'intérêt d'une seule personne Ben nit kessé nga fekk ay nit yu dajaloo di liggéey tous les jours yow pour intérêt ben nit nga ne nit ñi ku nek na fo xam jëm te mu fu leer ne nit ñooñu ku ci ne da nga am famille am ay factures yoo fay am ay besoins am ay dépenses yo wara a def donc man damay dama comprendre mom lan lay gérer ak lan lay diriger il travaille pour l'intérêt de qui médiation mënon nañ bañ yegg police bu ñëwoon toog def médiation maire bi sedda benn parti jël benn parti le strict minimum ku ci ne am ko ku ci ne liggéey c'est-à-dire da ngay dajale nit ñi ñu liggéey au lieu ngay jël affaire bi jox ko benn nit kese la dame la xam nañ ko nim ñuy seetee noonu lañ koy seetee xam nañ ko donc duñu jaar sax ci yenn détails yi mais li gën a garaaw mooy munoo ñëw fekk ay xale yi di liggéey nga ñëw ne xale yi nañ génn an say doom yow. imagine nan lay elle va réagir de la même manière non faut qu'on soit sensé un peu par rapport ak mère bi ci santé Il faut revenir à la raison parce que kilifa la sama la mais néanmoins il faut repenser à cette chose là pas pour moi seulement mais pour toute une génération ah, pour toute une génération Voilà, bala je tiens à remercier rapidement euh, je tiens à remercier ma mère de je le remercie aussi il y a beaucoup de gens je ne pourrais pas citer tous les noms mais il y a beaucoup de gens tout autour de moi yoo du début jusqu'à maintenant ils sont là-dedans je remercie beaucoup de gens ils sont tout autour de moi et voilà les et je vous demande aussi de rester sur ce que vous êtes la déontologie surtout nak wa marché barak je vais en profiter wa marché barak ku ci ne depuis début bi ba légui ku ci ne yaa ngi waslu ak yaa ngi dox li nga meun ga nak ka bi metti na parce que fi la deuk en même temps dafa metti fi la deuk donc la dame là je sais pas où elle habite mais tey bu fi ñëwoon tam sànc dañuy jàkkaarloo chaque jour donc way bi dafa wara rafet ce qu'on appelle le bon voisinage te Sénégal mënuñu ñew diko tal ci ben fan c'est impossible mais na fa ñoo xam ne seen jikko lañu war a rafetal seen xalaatin ñu màccal ko parce que ñëw fekk xale boo xam ne mu indi ay bagaasam teg nga jàpp ay moteuram diri jaay doole yuuxu fii daw fële déjà ñun li ñuy wax naan danga ñoo bàyyi ñu liggéey loolu la doon wax daf ñoo bàyyi ñu liggéey mais en bàyyi moom liggéey ci fitna laa nekkoon depuis ba mu wàccee ba léegi fitna wu àllay ba àllar bay sëriñ bi loolu di haut te bu ñu bëggee bés bu ñu yeggee ci cëppaandoo bi fi nga xam ne ñëpp fan ñu leen di atte ku ci ne ñeme naa la woo nga ñëw taxaw àllarbari sëriñ bi ñi ko laal ñëpp dugal seen poos yóbbu ko seen kër xam na leen te am na ñoo xam ne loolu la ñuy dund donc loolu nañ ko jël en compte moom nag duma ñëw taxaw di ko accuser naan ko santé añaa jël lii wala lii mais abus de abus de abus bi dafa am